nee na mi ngi delluwaat di wax ni asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa di yëkkati ay nuyoo yu sell. di yëkkati ay nuyoo yu sell. di ko jëmale ci sunu jàmbaar ju tedd jii. cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu cheikh Mouhamadou Basir ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul di xalifa général ku yeewoo ci biir adduna bi. te di ko ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan. nee na mi ngi lay ziyaare waat bu baax ci bis bu sell bii di ajjuma di diggante tisbaar ak takkusaan waaye nee na mi ngi lay santaat bu baax ci cër bii nga ko defalati ak lii nga ko mayete ci sa bopp ndax nee na ku xam xam su nga sa tànk xam ne ajjuma daal bariwul nag looy def lii waaye cofeel gi nga xam ne am nga ko ci moom ca mu yàgg lool te ñu ñi di njabootam ñu xam ko sa digganteeg moom moo tax bi mu la ñaanee ni a ñëw Touba. da nga ko cee jox ndigal lu gaaw. nee na mu ciy santaat yàlla bu baax. di waxaat encore une fois alhamdulilahi rabbil alamin. sëriñ bi Mamadou Mamour nee na mi ngi leen nuyu. di am nag mbégte jàkkaarloowaat ak yow. rawatina ci mission bi nga xam ni. son excellence le président de la République. son excellence le président de la République de tous les Sénégalais El Hadji Macky Sall. muy Macky Sall. muy Macky Sall. moo jël cër bu rëy. moo jël cër bu rëy. la. boo xam ne cër la ko yitteel. muy wàllu assainissement. muy wàllu assainissement. ci direction générale bi ñuy wax ONAS. ci biir direction générale bi ñuy wax sant ñu ay liggéey. sant ñu fa nag ay bi mënu ko joxee itam. assainissement yaatu na ci Sénégal. assainissement ci biir Sénégal yaatu na lool. liggéey bi yaatu na. liggéey bi lool. waaye bokk na ci ndigal yi. waaye bokk na ci ndigal yi ma jox. mooy assainissement Touba. mooy assainissement Touba. naa ko bàyyi xel. naa ko bàyyi xel. naa taxawu. naa ko taxawu. naa ci def lu ma mën. naa ci def lu ma mën. ak lu ma mën ak lu ma ndigal ma jox ma président Macky Sall jox. mu dëppoo nag. mu dëppoo nag. ak yéene bu mu fekkoon ci sama biir xol. ndax ma fi gan. ndax ëtt bii ma ñëw tey du ma fi gan. yàgg nga ma fee dalal. yàgg nga ma sama njaboot maak sama njaboot. kii toog sama rakk kii toog di Seydina Diallo sama rakk ñoo bokk ndey ak baay. la yàlla dogal muy procureur bu Mbàkke. bi may ñëw. bi nu ko affecté fii. dama ko ne bala ngaa teg sa tànk fenn. demal seeti Serigne. demal seeti nga tàllal ko sa ay loxo mu ñaanal la yàlla te loolee la def kulile googu la yàlla booleeg ñun nag ak diggante bu sell boobu ak cofeel gu réy googu bu ci président Macky Sall doolee tey ma war a saytu assainissement Touba bu ci président Macky Sall doolee tey ji ma war a saytu assainissement Touba wala bokk bokk ci ñi koy saytu loolu dama ci santaat yàlla bu baax a baax di la firndeel yéene bi di la firndeel nag bi ma ci am. di la firndeel pas-pas bi di la firndeel pas-pas bu rëy ma ci am. Euh, ci suba lañ fi dugg si ci suba dugg si ci dëkk bi. war nañ ko wër nañu ko. seet nañ liggéey bi seet nañu liggéey bi. saytu nañ ko saytu nañu ko. xam nañ fi mu toll. xam nañu fi liggéey bi toll. président Macky Sall. président Macky Sall. moom daanaka wàccoon na ak ñun moom daanaka wàccoon na ak ñun. budget bi ci war. ndax budget bi ci war. muy 23 milliards. muy 23 milliards. yëkkati na ko yëkkati na ko. teg ko ci ministère des finances. teg ko ci loxoy ministère des finances. ak ministère de l'eau et de l'assainissement. ak ministère de l'eau et de l'assainissement. ak ministère bi nga xam ni. ak ministère bi nga xam ni. moom la ñu dénk. moom la ñu dénk. wàllu prévention. wàllu prévention. des inondations des inondations. ñun nag ñoo ci des. ñun nag ñoo ci des. ñoo ko war a doxal ñoo ko war a doxal. moo tax moo tax dara doyu ma ci woon sëñ bi lu dul ma ngàbb sama tànk ak samay bëti bopp gisal ko sama bop xam nañ du liggéey bu ndaw naa ni du liggéey bu ndaw waaye waaye maa ngi lay biral ni jël naa décision maag équipe bi ma àndal di ONAS ak ñi ko war a taxawu ñëpp fas ni ci yenn ànd ak préfet ak sous préfet ak monsieur le de Touba Cheikh Abdoul nga xam ni ci suba ba léegi mi ngi taal otoom nekk sunu kanam di nu dalal fas nu yéene def sunu kemtalaayil kàttan ba liggéey bi avancé ba aboutir ba nu am ci ndam li nga bëgg xam na ni màggal Tuuba soreetul de te xam nu màggalu Sëriñ Tuuba fi mu toll ci yow nawet bi itam xam nga ni soriwul jàpp nañ ni sax moom nawet bi ñoom ñoo war a bokk jamono. jàpp nañ ni màggal gi ak nawet bi ñoo war a bokk jamono. loolee nag dafa laaj Pastef. laaj na taxawaay bu rëy. moo tax moo tax. ma ànd ak entreprise bi ma ànd ak chinois yi ñu nga ne la toog. ànd ak équipe yi ànd ak équipe yëpp. ñu gis lépp ñu gis lépp. bu ñu gisee nag. bu ñu xoolee nag ba gis ko ba càmbar ko. ba jàkkaarloo ak ba jàkkaarloo nag ak yow. daanu sàkku nag sa ndigal. ndax yàlla dogal na ndax yàlla dogal na nag. dëkk bi dëkk bii fa tabaarakalaaw yaay borom. yaa fi toog tey yaa fi toog tey. toogaayu Serigne Touba Xaadimul Xaadim sunu jàmbaar ja. sa ndigal sa rek. la ciy déglu ni nga ko bëggee ni nga ko bëggee. noonee lañ ko fas yéenee doxalee. li nga ci bëgg lépp te di ko ci wut. mooy ndox mi mooy ndox mi. muy liy jóge ci wàllu taw bi muy liy jóge ci wàllu taw bi. ñu mën koo saytu. yóbbu ko ca bassin yi war a dem forage yi ñu fi def forage yi ñu fi def. te jàpp nañu doyul. te ñu jàpp ni forage yi doyul. ñu jéem koo liggéeyaat ñu jéem koo liggéeyaat. defaat ci suñu kéemtalaayil kàttan. ngir manque gi mu war a mën a manque ndox mi ci napp ya. ba ndox ma delluwaat. bañ a ball jëm ci kër yi. boo ma si joxee ndigal itam. loolu saytoo gu ma ko woon bëgg na maa génn. kër yi nga xam ne ñoo wër ñoo wër jumaa ji. xool kër yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji. ak barab yi nga xam ne ndox mi gën a fa la balle. ak euh, barab yi nga xam ne fa la ndox mi gën a balle. boo si joxee ndigal ñu xoolal ko suñu bopp. jox ndigal entreprise bi jox bi. yi nga xam ne dafa yàqu. wala liñ ci war a defaraat lépp. ñu defar ko incha allah rabbuna rahman. bëgguma guddal nag mbàkke ndax toogaay bi yàgg na ñoo ngi lay santati bu baax te di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah mbàkke jërëjëf ñu ngi lay sant te di la ñaan yàlla Cheikh Mountakha ñoo ngi lay ñaanal yàlla nga yegg neew yoon te benn pakk buñ laa fil di ngërëm gu ñu gërëm Cheikh Abdoulaye Ka moomu li nga wax li ci am solo la ak ak